ma kañ tabak Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakke yaa nu yem rafet ji ko bari ay mbokk internet bi kon li ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci Touba Ndindi ànd ak sëñ sàmba Fall mu nekk jëwriñ ci sëñ Abdou Karim tey jii ñu ñëwoon defoon ziar ànd ak moom mu indi woon ay puus puus ki xéwal sëñ ma sàmba lañ toogal ni moom la ñuy jox kàddu yi waxtaan ak moom ñu xool lan la jëlee fii ci sëñ kër Abdou Karim sëñ ma sàmba nuyu nan la eh, jërëjëf euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi sëñ ñu ngi lay siyaare bu baax di siyaare ñu nga àndal ñëpp di ñaan sunu borom defal leen tawfiq ak taysir tey jii ni nga ko waxee rek noonu la demee dañoo ñëwoon doon indi sunu addiya ci ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon ci mbooleem kuy taalubeem di jëwrinam ak donga ya nga jiite ak nag nga bëgg lu baax tamit comme ni mu ko waxee ci biir xëy na noonu rek tax njiit yi ñu ñëwoon doon ko jëfe di jëfe ndigal li ndigal moom buñ la ko joxee jëfe ko rek moo la war moo tax ñu ànd ak donga yi tey jii ñun ñëpp di jëfe ndigal li di sàkku rek di ñaan sëriñ Abdou Karim Mbacke yàgg fi fii ñu toog mooy saalam bi nga xam ni saal bu mu fonk la kilifa yu bare bare bare ci réew mi eh, jaar nañ fi eh, niti àdduna yi ak niti diine yi ak it taalibe yi ñu bare bare jaar nañ ci saal bi eh, mu leen fi dalal di leen woo di waxtaan ak ñoom ci seen i yitte ak seen i maanaam aajo di di santeeg ñoom ci maanaam mbiri àdduna ak mbiri alaxira ni nga xam ne noonu la ko waajuram wu tedd wa Cheikh Mout Fadal doon defee waaye mënta ñàkkan ci moom ndax day sët boo xam ne eh, daa bokk ci Serigne Fallou Mbacke di doomi Serigne Fallou te Serigne Touba di waajuram da Cheikh Mout Fadal te Serigne Fallou Serigne Touba Xaadim Rasul dafa waxoon ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu zurriyatan tayyibatan mooy sët yu yu yaru yiw yoo xam ni tajtahidu dañuy farlu foo leen fekk am ci lan ci jaamu yàlla ak li seen maam Serigne Touba doon dox di ko dund loolu mooy doon seen doxin moom la Serigne Abdou Karim Mbacké di doxee Serigne Touba ko ñaanan zurriyatan tayyibatan tujaddiju nahja nabiyal Mustafa li nga xam ne moom la fi Seydina Mouhamed dël maanaam sët yu mel noonu la Serigne tubaa doon ñaan Serigne Abdou Karim da cee bokk moo tax mu delloon ci beneen eh, xasida naan wahab lana zurriyatan tuddimu al amala saliha ya qadim nanga nu may yow sunu borom sët yow yàlla maa ngi lay ñaan sët yoo xam ni yu baax la ñuy doon yoo xam ne dañuy aw ci maanaam sella laatal li nga xam ne moom laa leen tegan wahab lanaa surriyatan tuddiim al amala ñuy jëf saalihatan jëf ju baax te xam ku nekk xam na ni lii nga xam ne tey moom nga fekke jëf ju la kon li Serigne Touba doon ñaan ci sët sët ba jëf-jëf ju baax li Serigne Abdou Karim Mbacké woote ci handicapé yi bëgg leen a jox ay teraanga yoo xam ni moom la ñuy doxee di ci di ci mën a maanaam maanaam taxawee di ci mën a mën a mën a mën a gën a mën a oyefe seenu seenu seenu dundin boole ko nag fas yéene cee boolewaale ay xéewal yoo xam ni kenn ku ci nekk booy dem boo paasan ñëw mu delloowaat la sa paas wala boo paasul ñëw booy xaalis nangam waaye nag booy dem bëgg na sa sedd eh, ci dem ci ñëw gi nga ñëw ak dellu gi ngay dellu bu ko defee la muy yitteewoo woon muy payug yàlla doon ko bëgg bëggal ko eh, jaami yàlla yi ndax ku bëgg lu baax ku ne boole na la ci lii nii boole na ci ku bëgg lu baax ku ne du caaginu murit rek la du jullit rek ku bëgg lu baax nee na boole na la ci kon sëñ daam loolu daal moo doon sunu tànki tey jéego yi ñu ànd koog donga yi eh, yàlla defi tamit tey jii ñu yëgal la siyaar bi ngeen ànd ñun ñëw te ngeen nekkan ci yitte yoo xam ne yu xat la waaye bëgg a feddali ak kóllëre rek moo leen tax maa leen di ziare baax di ziare sa eh, eh, jëwrin ji nga àndal moom itamit di ko ñaanal sunu borom defal ko tawfiix te defal leen ko eh, bi ak fee ci saal loo xam ne boo fi jógee sa sam xel dina dal ndax sëriñ bi ki ngeen àndal muy sëñ Massamba am na lu mu wax ci moom te du tey mm. ñun bi ñuy ànd ak sëriñ bi du woon tey booba booba booba booba yàgg na ndax tey nga mën a Eh, sëñ Abdou Karim Mbacke nekk ak yow ci lu bare di la waxtaan a yow ci lu bare dégg nga li wax ci biir sëñ Massamba fu mu nekk fekk naa ko fa kon loolu rek jar naa sant yàlla te li nu nekkan lépp doonoon sant nañ yàlla bi mu doonee lu baax kon sëñ Dame mbir mi noonu la demee ñu ngi lay eh, bàyyi nga eh, jàllale. est-ce que est-ce que est-ce que sëñ Massamba lay yem liggéey sëñ Abdou bi wala am na leen luñ ci mën a xaaraat. waaw am na leneen lu ñuy xaaraat ndax man dama fas yéene ànd ak man du wàccu ma man la sëñ Tuubaa doon wax naan yont yàlla Muhammad sunu maam daf ko waxal ne ko euh, antal karimu anal xaddimu waaye dëhëral uddimu fii ka sanaay man euh, seexul xaddim day yow yonente bi anta boo ko déggee koo koy waxal mooy yow kon dafa mel ni kon sëñ Tuubaa dafa jàkkaarloog yonte bi sëñ daam naan ko anta yow bu dee ci baatu li nga di jàng verbe ak yooyu ci tubaab waxuma ko waaye ci arab anta mooy koo jàkkaarloo anta mooy yow نانكم منكو أنت الكريم يا أجي تدجي ومصابة رسول الله ويا أنا من شيخ الخدم الخدم ماي كلي لجيل لان فان لا لجيل من دهرن أديمو سما ديروك نك شيء جامونو فيك السناي دوما تك سما لخزاي كن loolu sëriñ Touba waxan na ko man mii sëñ Massamba loolu laa fas yéene sëñ daam ñaan naa yàlla daal ànd ak moom incha allahu ba sunu borom euh, def lu ko dogal ci sunu jëmm yi euh, bu boobaa nag ñu xam ne lii dogal la waaye man ak sëñ Abdou moom nekkul donga boo xam ne day wàcc ñun moom fasu yéene wunoo wàcc danoo fas a dëkk ak moom ànd ak moom ba ilaa yow mi dina euh, ci dara ji sëriñ Touba ba borom bi dogal jërëjëf sëñ daam waaw imaam Malick ba tey maa ngi toog ak beneen jëwriñ boo xam ñu ngi koy wax jëwriñ Ibba Saw Touba Mbambilor moom tamit mu xam ne ni day sonn ci bi gis jëf lu rëy li mu jëf mook magam ci wàllu baaful yu mucc ayib yoo xam ne nii maanaam yu méngoog jamono fi mu toll ni gis nañ ko mu jox ko sëñ Abdou Karim addiya iba jëf euh, lu ni mel euh, lu leen ci xéer waaw ñu salaamaaleykum ñu ngi nuyu kenn ku nekk turam santam di siyaare waat sunu jëwriñ Cheikh Massamba Fall di siyaare waat Baye Fall yëpp yi nga xamante ne ñoom dañoo jóg mànkoo àndandoo nekk àndandoo pas-pas ñoom ñëpp kenn ku nekk ànd ak ñun si pas bi nga xamante ne moom lañ fas yéene ànd ak jëwriñ sëñ Massamba Fall ndax jëwriñ sëñ Massamba Fall li tax tey ñun ñëpp am yéene tey jëf lii mooy dañoo mës a toog si kanamu sëñ bi mu ne ko kii mooy sama seex beejo loolu kat loolu kat moom moo tax tey loolu noonu ñu dégg si moom moom moo tax ñun ñëpp ñu am pas-pas boo xamante ne pas-pas boo boo xamante ne kenn ku nekk am yéene indi àdduna ak la si biir tey jox ko sëñ bi ndax sëñ bi kat joxe na woon na ndigal yi mu ne fii ak le premier safar la ko soxla moom moo taxoon ñun ñëpp mànkoo kenn ku nekk génnee ñëpp ñëpp jëf si daayira bi ak ñeneen ak ñeneen ñu lépp muy lii boobu mu ko tuddee woon Cheikh Béthio boobu boobu lañ bëgg a remplir si moom moo tax kenn ku nekk jaayante ñi nekk Europe sama benn mag ba mu ko waxee foofu dafa ne moom dina jaayante baaful ak lépp waaj ko moo tax tey ñu dajale lii yow si ndigalu jëwriñ ci ngeen ni yem wala yéen ngi waajaat ba tey ñoo ngi waajaat yeneen incha allah ñu ngi waajaat yeneen ak yeneen képp kuñ kuñ gis koo xamante ne julit nga ak ku dul jullit loolu la sëñ bi wax moom moo tax ñun ñëpp ñoo ngi waaj di di waajal ñu ngi ñëwaat ak yeneen daal loolu daal lañ leen mën a wax voilà Imam Malick ba tey comme ñun ko doon waxee mbokk internet yeeg internet yi fii leen nekkoon tey kër sëñ Abdou Karim Ndindi waaw wax dëgg fa yàlla macha allah àndoon ak sëñ Massamba faal mu doon indi ay pousse-pousse ànd ak waa Mbambilor yëpp ñu accompagner ko ñun waa dakaar instant xanaa di leen tàgguwaat di nuyoo ko sant ko gërëm di wax ne ñi ngi sant képp koo xam ne yaa ngi nekk nitu Touba rawatina waa Dakar sama téer Inzaghi Alaaji Ba du ma ko fàtte Jagi Fazer